Euh, c'est un choix bu la neexee euh, nga bañ ci appesantiru mais euh, règle yi nga xam ne moom moo régir nit ki bu fekkee ne dañu la teg ay daan daan bi am na fu mu commencé am na fu mu jeexee bu fekkee ne dañoo choisir mettre la en en liberté provisoire takk la bracelet électronique war nañ war nañu xam kañ lay jeex mbir mi mois de mars la woon tey ñu ngi toll ci juróom ñaari Euh, ci juróom-ñaari weer euh, dossier boobu procureur interjeté wul appel est-ce que yaa ngi xool ak say avocat euh, ci ci ngir ñu saytu app bi ñu war a dindi bracelet bi la. waaw xam nga bu ñu nekkoon ci réewum yoon duñ ma teg loxo ba bracelet di ci topp ak yeneen bu nekkoon ci réewum yoon. ñu bari ñu mel ni man tamit kenn du leen teg loxo ndax ay post Facebook ndax dem seeti Ousmane Sonko ndax jóg ñaxtu wane ci ñàkk ànd ci jaay doole bu ñu nekkoon ci réew moo xam ne yoon dafa tëdde ñaxanaay lii yépp du am comme nag dama jàpp na ci réew mi nekk yoon daf fi gàll gauche te ñoom ñi nekk ci biir yoon ñi wax ko nangu ko euh, moo tax ñu jox ma lu ni mel te amul àpp waaye suñuy mbirum avocat la suñuy avocat ñoom lépp lu ci war ñu ngi koy def donc dañuy toog taaxirlu rek ba xam fan la wànneentu di mujjee ki gëtam mais ci yoon boo xam ne ci réew boo xam tamit dafa am yoon le citoyen même s'il est engagé politiquement et grand responsable d'un parti politique tamit warul nekk en porte à avec la loi bi ñu génnee ci dossier boobu mois de juillet gis nañu euh, ñu attribuer la benn audio euh, dans lequel la personne appelée à l'insurrection euh, mujj nañu la bàyyi waaye foofu procureur dafa opposé wu ndax dafa bëggoon da doon demander le de de dépôt mu interjeté appel am nga aussi beneen audience devant la chambre d'accusation et toujours pour des délits d'opinion question boobu de xanaa war nga ma koo mën a tontul ndax leer na la ne yow xam nga ne audio bi du man nest pas donc mënoon na yem foofu. mais du man maay yemal dossier yi. waaw mais xam nga ko sa àdduna Sénégal procureur ak ñëpp xam nañ ne audio bi du man boroom audio bi tamit taxaw na en toute franchise ak honnêteté réclamer audio am liberté provisoire sax waru ci woon a am mais dañ ma waroon a bàyyi ma dem sama yoon liberté provisoire am na ci procureur walbatiku ne d'accordu ci def na appel damay bàyyi avocat yi def li ñu war a def. audience bi le 26 la devant la chambre d'accusation incha allah rabbi